Rewmi 24 TV. Ibrahima ak Sabara yaa ma bëgg a transformé en journaliste quoi. un marché. gars yi oh oh, oh les gars dafa muu dafa muu ah wala boog dafa muu dafa muu dafa muu. boy boy boy TV boy boy jala la kwa boy jala jala jala ni jo acha TV jala re TV boy ni to kula ga aye iyo sisoko nonyala sisoko jambala sisoko sisoko jambala aye iyo Sisoko Jambala. Sisoko Jambala. Sisoko, Sisoko Jambala. Ae, Iyao. Sisoko Jambala. Sisoko Jambala. Sisoko, Sisoko Jambala. Ae, Iyao. Sisoko Jambala. Jamala, Sisomo, Sisomo Jamala. Aye, ìyá o, Sisomo Jamala. Sisomo Jamala, Sisomo, Sisomo Jamala. Aye, ìyá o. Sisoko boy sonko. Sisoko, Sisoko boy Aye ìyá o sísọwọ́ mọ́ ìsọ̀nkò sísọwọ́ mọ́ ìsọ̀nkò sísọwọ́ sísọwọ́ mọ́ ìsọ̀nkò ààrẹ ìyá o sísọwọ́ mọ́ ìsọ̀nkò sísọwọ́ mọ́ ìsọ̀nkò sísọwọ́ sísọwọ́ sísọwọ́ mọ́ Izoka Muganga. alors yegg nañu si ex détenu politique bi euh, Lamine Sissoko motax pour ñi nga xamantene ñu ngi ci live bi pour ñu xamé ko nonu dañu ñëwoon seet ko ci kërëm donc dañuy dugg saafonte ak mom wax ko ne on est tout de tout cœur avec lui. waaw comme niko Ousmane waxé on est là ñoo ngi ci kër Lamine Sissoko un ex détenu par la voyoucratie du tyran Macky Sall qui a vécu une terrible injustice ñoo ngi nii moom la ñëwoon Massaw ñoo xol ko ñoo nemmeeku ko parce qu'il faut que nous wax la euh, fraternité bokk na si idéo Pasteur. Le pasteur comme ni ñu ko rek du parti politique beaucoup de parti politique classique yi nga le ne mais les parti la bu nga xamné dafa am ay idéo ay principe yi nga xamné patriotisme bokk na fraternité éthique mais té nak valeur bu ñuy mettre en exergue euh, la fraternité nous avons un frère qui a séjourné en prison durant deux mois ou trois mois je pense on est là aujourd'hui pour Mastaoko, l'afficher toute notre compassion. Euh, pour daal ñu koy ne ex détenu la parce que non seulement dañ koo jàpp illégalement li nga xamante ne tegul ci benn yoon ñu jàpp ko yóbbu ko sàccul fenul triandewul xaalisu kenn ñu jàpp ko politiquement yóbbu ko kaso pendant des mois ñu bàyyi ko mu ñëw donc dafay baax ñu ñëw sargal ko man nag en tant que coordinateur communal de la jeunesse de Pastef à Vélingara ñu ne dañuy ñëw nous sargal ko won ko vraiment on est de tout cœur avec toi on est de tout cœur avec toi ñu wax la né tamit euh, Ousmane Sonko moy Sissoko Sissoko moy Ousmane Sonko. képp ki nga xamante dañ la tek injustice ci sa kanamu njaboot sa kanamu yaay ñu wax sen euh sen doom jambar la pour lan la dañ ko japp ci lo xamné suñu mam tu ak mam yépp nañu ngir liberté dañoo xeex ngir Sénégal ba yegg ci indépendance ba yéen ngeen a ñëw fii ci presque ci fi nga xamante ne mooy fond euh, nga xam kenn di leen dund xatal kenn du leen teg fetal loolu mooy la liberté ku nekk am nga liberté toog fu la neex wax li la neex ak ci anam yi nga xamante ne ñoo démocratie dañuy ne la liberté d'expression elle est primordiale soo demee ci article 11 12 13 de du constitution du Sénégal dañ lay la liberté euh, d'expression la liberté de médias, la liberté de marche tout est garanti par la constitution du Sénégal moo tax nous, ñu ñëw ñu ne euh, euh, Lamine Sissoko mooy Ousmane Sonko Ousmane Sonko mooy Lamine Sissoko Diomaye mooy Lamine Sissoko Lamine Sissoko mooy Diomaye parce que nous képp ki nga xamante Le droit patriotique deretu patriotique dëgg moo dew sa sa deret dañuy nangu dañuy nangu ànd ak yow parce que gor nga mënoon nga def jël la facilité mooy ànd ak ñi nga xamante ne ñoo nekk fii tey di jël si alalu réew mi di ko gundaandaat di ba daxal ma dax di def lu leen neex di lekk alalu réew mi mënoon nga ànd ak ñoom mais defoo loolu gor piir nga ñu ngi koy seede na kanamu yaay di leen ne ñëw nañu fii donc dañoo ñëwoon fii pour di la jox euh, lii ñun waa jeunesse patriotique ñoo la ko jox lii nii ñoo la ko mooy may mooy Jomay mooy Sonko pour lan Jomay mooy Sonko parce que yow patriote nga yow ko bëgg patriote nag suñ ko waxee mooy ki nga xamante ne moo bëgg réewam moo tax tey ñu indi la kado bi pour jox la ko non seulement yeggu yeggul foofu lii wane nag patriote la gis ngeen bracelet bi yeg euh, yemul foofu dañoo bëgg laa lancer cagnotte cagnotte boo xam ne dañuy lancer sa numéro téléphone directement wala numéro de téléphone responsable bi ñu joxé ko ñu xolal bu dee 1 million lañu am bu 2 millions bu dee lépp lu ñu am ñu indil la ko nga mëna lancer activité nga mëna reprendre parce que képp ku nga xamante ne dañ la privé de liberté pendant 6 mois. Mhm. Koku peut-être fay am li nga xamante amoko. Mhm. donc foog ñu jappalé la nga mëna dem nga mëna euh, reprendre sa activité nim ko waré. pour lolu, il te faut des ressources financières Et pour lolu, ñun patriotes est-ce que yéen ñëpp engage ngeen. ku nekk côté. Pour la le pour sargal vraiment nous renouvelons toute notre amitié et notre fraternité à ta simple personne parce que da simple parce que nous sommes parce que patriote parce que Sénégal awa salaamaaleykum fuladu hande min arno min komin tidiane sek komin arno hande wadde visite sisoko lamin sisoko mbaɗanoɗo détention arbitrairement e eh, laamu makisal min garne noon jarnude mo wiidemo ɗum weeɓani eh, jeunesse belligara fof neno jarnuma eno yettoma wiide kadi yo allah sellin doole men ngari kadi wiide hannude yumma ɗum weeɓaani te ko goto kamin won ɗo ona o nanngaka e bandiyagal o nanngaka e hunde o haɓanaade wuro makko waɗi feere makisal nanngima injustement jooni ɗum ɗoon fof min ngari min mbi miɗen rendema oma e, visite min wiya a jarama yo allah yoɓe te min gaddi oɗo ɗum ɗo kadi wiide ko ɗum ɗo tan lancement tan pour enen joligaranaaɓe ngannden ko kaɓɓote ɗen ko hona hay goto hona ousmane sonko hona ɗum ɗo ko liberté men wonɗen haɓade ko no sénégal yaari yeeso gonɗen haɓade koye ɗum ɗon foof noon e watti feere men gari men mbi kadi men jarnuma hen men weltanuma hen a jarama yo allah yoɓe yo allah sellintoɓe te kadi jeunesse weligara kadi wi eno yiɗi yaltinde kañot goto men mbalnuma par ce que hay goto wawa yoɓde lebbi ɗi mbaɗɗa toon ɗi ndine lebbi noon min jiiɗi udde kañol goto pour goto foof e men yaltina hay soko mbuɗu mum trans mum waɗa hen a salminama a jarama merci vraiment kamɓe gañanama lamin yo lo wax noon la yoon bi mu ngi noonu asalaamaaleykum kontaan naa nag si teew bi trop bon li yombul quoi franchement parce que boo xoolee yàgg naa foofu te aussi waa Pastef franchement dina ay jàmbaar dëgg lañ mhm. parce que bu ma fa duggee ba nu may chaque jour que Dieu fait dañuy ñëw di ma seeti di ma indi lépp te dama koy sante yàlla yàgg naa Vélingara mosuma politique mais damaa dem ba certainement ma xool ma xool politique Vélingara nu muy doxee injustice bu nga xam ne jeunesse Vélingara nu ñu koy doxalee moo baaxul benn tey ñun toll nañ fu nga xam ne maa bu nga xam ne tey ñun ñëpp war nañu weesu fii dinañ dégg parce que tey man mosuma ànd ak ñi nga xam ne parti au pouvoir bien que vrai sama waa sama pap dem na ba tedd dee yal na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana parti mu sa nekk mais maanaam personne tey laay gën a fonk politique ngir Macky Sall lu ma dugal kaso ngir Ousmane Sonko te Ousmane Sonko day tax jaral na ma sama bakkaar bi dama koy tayle ngir bu dee loolu mooy tax man Lamine ma dee barki alxuraan naa dee ngir Ousmane Sonko parce que lu ne nag daj naa ko lu ne dégg naa ko mais ñu ne yëf góor la rek jëmmul kenn. Hmm. waaw mais Ousmane sonk na xam ne moom chaque jour deretam mooy daw si man. loolu fort na bu may ma am nii ñu bëri ñu ngi koy soxla amuñu ko. sama ngir sama ngir moo tax sama waa ñëpp topp Ousmane Sonko. Hmm. macha bi boo ko newoon lay dégg mais depuis mu xam ne Macky Sall moo ma jàpp. maire bi jour boobu la pare lépp lu nga xam ne mooy parti au pouvoir Macky Sall mi ngi nii toog du bàyyi ma fen yaakaar naa kenn gënu maa bëgg parti au pouvoir biir vérigara mais tey maanaam yëg-yëg bu ma am si waa Pastef yëg-yëg bu ma am si ñoom musuma kaa am si leneen lu nga xam ne activité bu ma ta def musuma am ak euh, yéen euh, yëg-yëg boobu yëg-yëg bu ma amee si Pastef nu ma amee yëg-yëg boobu si Pastef musuma kaa am si beneen activité macha allah parce que boo ma yokk boo gisee tey Ousmane Sonko ñëwee boo génnee idée yi nga xam ne si bopp nit ñi idée bu nga xam ne nit warulaa jënd kon ñun dans ce war nañ sant yàlla ñu ñëpp xam nañ Vélingara bu njëkk bu ñu ñëwee damay ñëw man Ousmane damaa bëgg nga votel ma jaay ma sa carte. suba man bu mu amee est-ce que Ousmane naa la liggéey di jàcc. ñun dañuy mun a demal suñu bopp di xeer injustice bu nga xam ne moo nekk biir Sénégal te Ousmane te Ousmane Ousmane Keita tey mu ñemewul def dara ñu ne ah Ousmane lii la. loolu yëpp ngir la ngir nguur bu nga xam ne mooy loolu kenn ñematu wax. mais damay ñaanal yéen ci seen teewaay bi kontaan naa si trop di leen ñaanal nag gudd fan ak wér-gu-yaram. ma ne nag fu ñu teg suñu tànk amul dellu ginnaaw. waaw surtout loolu. ñu ne bis dee ku fa dund. gore woo man loolu laay dundee saa su ne man sama jëmm ji loolu laay dundee dégg naa lu ne nag je m'en fiche am na ngam nga xam ne woo nañ ma fi fay ma xaalis ma ne leen sama yoon si bu doon xaalis moo tax doon ma bu doon xaalis moo tax may topp Pastef am na ñi nga xam ne ñu ngi yëkkati seen xaalis di ma woo ba seen bureau di ma jox ma ne leen dewuma te xam naa leen xam nañ bu baax lu may wax bu yaboo bu ñu vidéo tamit ñu xam ne lu wax lu am la ñu ngi fees biir biir ngiraat del fay nañ ma xaalis pour mu ànd ak ñoom ma ne leen ànduma bu may ànd ak nit ki damay ànd ak nit ki ak sama ngor mais du ma Ousmane ngir xaalisam yow li nga fi nit naaw de nag boo commencé dara pour lu fi dugg na fël nii nañu avancé rek incha comme lu ma wax rek bis dund ma bis dee moom ku fa dund xamal ni gore woo man Lamine am personne lu ma lay wax duma ma si musa dellu ginnaaw ba bis bu may sàngoo suuf sonko billaahi waa passé wax nañ xam ne xoolal sama bakkal laa tay la ngir ngir waa passé kontaan naa si waaw léegi dama bëggoon mu joxe numéro en direct lii en direct la mu joxe numéro am téléphone képp ki nga xamante ne bëgg nga yaay ñu ngi ñëw ci yow léegi dama bëggoon non <laughs> non non garaaw loolu euh, façon nañ ko gérer léegi nañ ñëw fii ci yaayam moom tamit peut am na lu muy sànni waaw ah, ñoo ngi nii avec la maman de Lamine Alaaji Lamin Sisoko moo nekk nii. asalaamaaleykum salaam. waaleykum salaam. nañ déglu ah nañ déglu maire bi nañ déglu. sallallahu alaihi wasallam allah so ala ko heddanima hankkadi min komin wuuri baylo no cen pourcent moƴan ko wuuri baylo wonno cen pourcent kono sukaɓe am ɓen ɓen ko sonko woni hay so mbiɗen haala ɗo ni meɗen fija ɓe wiyanmi han kan ko wuuri baylo mi wiya ey oɗo gila ñande o nangge ɓiɗɗanmo soko par ce que omo tawa e sokugolngo ñande o nangge ɓiɗɗanmo sokimo ko nden ñande mi ritte e ɓawa makko par ce que amin a yiɗatalan a ñaɓiɗɗo am mi yiɗama ɓuuron andude sonko galle ɗen fopp ko sonko wonani hmm. ila hande ha janggo o heɓi yo heɓandu ko kanko baccemeɗe toon allah kadi yoɓe heɓ lummin toon yalla o heɓi o heɓani koye ɓawa makko ɓe woni ha janggo ha hitande ɓe wi yo a ala mhm. min kadi min yirto kono mi jokkata parti goɗɗo macca parti sonko hmm. ila min ɓiɓɓe am ɓe isiraɓe am ɓe taniraɓe am ɓe hmm. meɗen foti ɗo koy ko yata yimɓe nogahe ɓa galle an goto na toon mino fof ko som buba ko gardien suudi mbayɗo wonno ko nu ittimo moto mi ñalama ko nanngama o yatti andu sa yi an hunde anda ta hunde mm-hmm. nyande kite ma wujju anda e sa natu hunde kadi anda e giɗo ma anda gaño ma gila laamin naati o ka son wakkiliki mm-hmm. kala ko watton do miɗa nana so mi wi mi yaha ɓe ya o taya o taya ñande minalila min nanga ma nyande mi na lutasio o kilinigi mena aɓilan yontere miɗa nder kinen miɗa waali mi annda ko heewi am on tuma mbiɗa mbawi ñande ɓe yehi balɗe tati mum binangimi o wiɗamo to mi artuɗo balɗe moƴƴata mi artani ha yehi ha lebbi ɗiɗi simi yoɓi pas mi ar kono gila mi arta wiɗa ɓan mi yaha kodda mbiɗo yetta o miɗo jaramo hmm. yo allah nangam o kala ko faala ɗo yo allah waɗam ya barkinelagal mbeɗe gandi minen kam mi e ruttata ko ɓawo hay so kaka lawol marché mi haala hay so kaka hewuji mi haalay ɗum du kamen koko min ƴe tan ko ɓe ñootani ko ko welatanmi mi haala eyi kaso oɗa goto wonani hmm. kamɓe soko ɓe wiɓe mi annda ka ɓe sakkitoto abulay watta sokama abu juuf sokama kalmi watta sokama honndu waɗi ɓe hay fo so waɗa ɓiɗɗo gorko noon hay fo so jommani maɗa hmm. ko ɓuuri bonde ta o tawi yide e drog wota ɓe yiiɗe puyna kono façon ɗum ɗo sanangama ko goto minen ɓe na do lamin togu ni yimo ɗo ku togu yahal ta ka kawiraɓe ma o wilan neno wiɗo wimi jogata saare ande ɓe faala yoɓe arɓe nanngalan kono ɓe jogata wimi koni togu hedditi ɓen togi an kadi togu wimi jogata waɗi jamar yagal makko ha do ñande minande wimi haalano lamin yo togu o mi jogata e mi yetti allah e nelaɗo muɗo on wakkilike on ke ha o yarti hay goto weɗi ngara wiyata wallimo sina ono mhm.

mane spécimen vraiment manam kala wotanoɗo mo oɗo ɗo wona wotiri gandal oto ɗon andi ton modal ko bindi goɗo mana? voilà basiru jomay fay waaw ñoo ngi nii ñoo ngi ni ak grand frère lamine ok euh, asalaamualeykum calmini on on fof wonɓe ɗoɓe bon mi yetti on mi jaar yon par ce que bon booyo o giɗa o nannga ɓe yiwa pasteur tag ko jaarugol o booy o yehii allah waɗi o jonnitimen mo kadi e jam e moƴƴat wa hannde no accitirani ono ngari argol mum ngol ɗo mi weldanimo moƴƴa populaire on a kawat njaga dessert ame o famot quoi popula do wona so go be ni o trafic manda dar be ni ko yeo drog be ni ko bandi mhm. jo natti manam anana version yi di fop ngay un jour jodi ke jota ya goddo ari no hala rek mais finalement mi ronki muynde min mo saway xamal lu ngay wax ko sama frère ni o imbi o retti galama koy mais ko pula do wonde ci hunde wadi top o weɗi haala bon minen nak allah waɗi o boyo e nangimo ko ha ɓeɗaymo tawi minen toujours men e nder mouvement pasteur fo fami nanndago ɗo mais minen on kay men no ɗon o haadi tagge ey ko changement men faala o kay wene men metta ruttade mbawo ey combat on si allah jaɓi gonga ɓe allah combat continue mhm. a jusqu'au bout ɗo kay menen ala ruttagol mbawo ey

sen kafinima noon enen beeli gara surtout enen i enen waɗa hunde wode ɗum woni laɓen ko enen jeeyiɓe ko enen woni himɓe ɗum ɗo lamɓe mabɓe kamɓe koɓe gollan gollanta en tan te ɗum so waɗi noon goto foof yo andu waref makko e nder beeli gara surtout enen sukaɓe jeunes ɓe enen ganden ko jiɗɗen par ce que actuellement aduna sénégal foof ene sens o ha heddi enen beeli gara ɗo surtout surtout beeli gara ɗo ni kono enen ne en footi andude ko jiɗɗen nawren beeli gara yesso par ce que sukaɓe ɗo golle eno manque e sara nde e goɗɗi e goɗɗi fof no manque ɗon kono e ɗin fof enen en foti haɓade ɗum hono mbatten feere ha miñiraɓe men e hen hunde waaw mi mi jaarima on alors léegi grand wax dëgg na fa la euh, kontaan nañu trop ci ñëw fi tey témoigné Lamine Cissokho li nga xamante ne mooy euh, suñu mbëggeel ak suñu cofeel parce que toog kaso dafa metti dañoo ñëwoon rek pour wax ko ne ñun JPS bu Vélingara ñun les jeunes de Ousmane Sonko ñi nga xamante ne ñooy jàmbaaru Sonko yi moom mooy gën a féetee moom moo gën a nekk jàmbaar bu mag bi li ñuy wax de highest level foofu nga nekk te ñun vraiment si sa kanamu yaay ñu ngi lay firndeel ne bu soobee yàlla lépp li nga xamante ne ñun mën nañ ko ci def pour taxaw la pour tey euh, mu commencé tey ba ëllëg nañ ne jàpp wala na ne ñun ñëpp ñoo bokk mbir mi te affaire de Ousmane Sonko du affaire de projet la projet nag soo ko déggee mooy que du nit moo ci am solo mooy ki nga xamante ne même Sonko bu mu nekkee kaso mu ne jël naa Diomaye fay def ko candidat kon cela veut dire que du question de nit yow nekkoon nga kaso terewul Pastef dem na soo ñëwaatee dañ ñu gën a dooleel ñu dem donc affaire de projet la bu soobee yàlla lépp li nga xamante ne euh, war nañ ko def ci la yow Lamine Cissokho bu soobee yàlla dinañ ko def lépp li nga xamante ne jeunesse patriote bi suñ taxawee ci mën nañ ko ci def dinañ ko ci def wax dëgg ne fa yàlla kontaan nañ bu baax dëgg nañ si yaayam lu mu wax yow tamit frère am nga dëgg nañ li nga wax loolu cela veut dire que famille Cissokho bi yëpp

vraiment waaw ñoo ngi nii ñoo ngi jóge woon kër Lamine Cissokho moo ngi nii non yow ngay jantal ñoo ngi jóge si euh, benn ex détenu ci si Vélingara muy Lamine Cissokho lañ ko jàppoon si nemmeeku tour bi mooy la venue de Ousmane Sonko à Vélingara ci lañ ko jàppoon injustement incarcéré ko fii ci Kolda mais libéré nañ ko après six mois de détention moom lañ ñëwoon seet si témoigner ko notre compassion notre fraternité vu que Pastef dafa am ay idéaux Il doit nga le patriotisme, dafa patriotisme fraternité on est venu polko, entre frères Nous ko témoigner de notre solidarité notre compassion. C'est bon. Allez Lamine amal jam. Oh, ok rafet na ya, ya. ok content na si trop. ñoo la gën a ma transformé en journaliste aujourd'hui quoi. c'est ça c'est pas c'est c'est normal quoi. ah c'est comme ça.

yàlla nañ ko yàlla na may amin amin yàlla may gudd fan ak wér amin waaw sutural ko bu baax a baax a lu mu bëgg rek mu am amin la jeunesse patriotique ah yéen ay patriote yi daw caméra ngeen patriote day ñeme caméra gisoo leen du mel chaque jour live wax leen ngeen di daw ah, man man man awma problème wax mais wax leen dara sànq da ngeen da wax leen dara benn moo ngi sa Lamine moo ngi nii. non non kii dafa mën a wax. ah patriote. non dañoo ragal. non non xam nga da ngeen ne kii égalité entre hommes et femmes. bu ñu voté loi parité. wax leen dara non non bu leen rusloo jigéen ñi. bu leen rusloo la gente féminine. même bu dee benn moo ngi. salaamaaleykum. damay nuyu ñun ñëpp fi bon on était juste au passage. nuyu Lamine suñu frère patriote bi. Mhm. ki nga xamante ne bon pendant des mois mu ci. dernière les barreaux. Mhm. injustement en fait. Mhm. léegi on a fait un petit déplacement nii rek. Mhm. pour ñëw encore ko suñu sympathie ak suñu fraternité en fait. parce que c'est notre frère. on était juste de passage nous ko moo ngi ni Lamine Cissokho jàmbaar la félicité ko aussi on ko affaire le yombul mais on est là pour lui on est là pour nous tous parce que Ousmane Sonko moom moo ñëw ubbi xel nit ñi euh, woon ñu en fait. c'est quoi la jeunesse ak lan la ñu war suñu dëkk mhm. man mii di wax nii sax mosuma dugg ci affaire politique man mhm. élection sax du ma voté maa ngi toog sama koye mais bi ma ñëwee ba commencé déglu Sonko commencé xam nga di ko suivre de temps en temps mhm. mu dugg ci man te instant bi mën naa wax ne ne direct patriote mooy daw sama biir yàpp allah tàccu leen ko waay waaw ñu doxale waaw gis ngeen comme ni ma ko gisee waaw eh, pareegul ah. Ah, waaw baax na ñu dem ñu dox gis nga lii laa lay wax patriote amul problème wax. waaw bon léegi comprendre nga. Mhm. depuis léegi. commencé naa dugg ci affaire yi bu ñu commencé def euh, réunion yi genre ak cellule yi sama bi koñ moom bokk naa ci ci ci responsable cellule yi en euh, ok bon juste c'est ça. ñun moom on est ay patriotes lañu xam nga. léegi instant bi dañuy génn nii ci koñ bi. Mhm. wane nit ñi suñu espèce humaine yi jox ma ko. Mhm. suñu espèce humaine yi. waaw juste pour woon population bi ne. bulletin bi mooy bulletin bu baax bi. bu baax bi Ousmane Sonko koy Diomaye. waaye Ousmane Sonko mooy Diomaye. Diomaye mooy Sonko mooy Sonko. te ñun patriote aussi ñoon ñooy Sonko Sonko mooy ñun. ok exactement. alors merci beaucoup. ah wana. na boo doo de benn de doo leen eh, benn de sonko namu naa la eh, fi abdou xaasit léegi sonko namu naa la léegi sonko bi la moom mën na jël ah grand mën nga remplacer sama gars yi eh? dañ leen di revenir après dañ leen di reveniraat dans quelques instants waaw ñu reveniraat ci live bi incha